la def neexu la waaye ba nga ba nga wëlbati koo xool ne man liggéeyu ma ngir moom borom bi lay liggéey loolu da lay dolli day day dem ba mën a muñ da dem ba attan dëgg la de jullit daa war a dellu ci boromam fu mu tool ak gëm yàlla rek mm-hmm. mooy tax nga mën ko attan dëgg la mm-hmm. kon macha allah tabaarakallah nañ xam ne mm-hmm. buñ leen àggana nañ leen fonk jaamu ci ñoom yàlla dañoo ñëw ngir liggéey mm. suñu borom dig ñu fi àjjana te moo ko moom mm-hmm. da leen koo baatale rek waaye buñ ko doon joxe moom moom yi moo ñuy dugal àjjana ndax moo ko moom mm-hmm. waaye da leen koo cërale mm-hmm. kon fexeel ba am ci cër ba waaw nañ leen delloo tamit seeni baat. Mhm. góor ñu bari li tax ñu naqari deret dañ leen a joxul seeni baat lañ jël ñun jigéen ñi ñëpp ko ci suñu loxo. dëgg la de baatu góor jigéen du ko jël ñëpp ko soo jaar soom. Mhm. da ngay moom. ndax du sa cër. yàlla loo dolli ci saw yaram rek yow da lay sonal fii ne ñi nga xam ne dañuy posé saa buñ posé wee dañ ne dara nekk ci ñoom di saan moo tax loolee bëgg a jël baat boobu ne yor ko ci kër gi ne man maay financé ci kër gi moo tax baat bi lañ koy joxe na leer na day diis rek mm. am noo ko du sa mbir mm-hmm. loolu tamit na ko jigéen ñu bari mm-hmm. góor ñi bari ngi wër seen baat tax na yoratuñ la mm-hmm. tax na joxatuñ la tax na mayeetuñ la jàmm tax na tranquille nañ mhm. am na ñu xam ñu ngi def lu leen neex nak ñak baat seen dugg di la naqaral yawit mhm. di def naka sudul nona nga diko ko sa xol di jeex mhm. te fekk na ñak baat bi nga ko ñàkk ja ak ñàkk respect bi nga ko ñàkk def rek loolu motax moy mooy mu tuku euh, jël bosam féete la ko non deug la deug la de sayda kon mu seetaat ne jikko yi nañ leen ko xol wa nañ leen xol yi ñu indi ci kër gi kër gi jékkiwul jékki rek dugg. déedéet wax dëgg yàlla dugg ci aras la wàll. suñu borom mu boole ñaar ñoom. Mhm. du góor gi di ndayu góor gi. Mhm. dañ leen bàyyi di xool ci doomu aadama yi. Mhm. doomu aadama dafa mënta fay bu fekkoon dañoo jël fay yi teg ko ci seeni loxo ñooy am du bari. déedéet waaye suñu borom dafa jël fay yi di ko teel boppam. dëgg la de. dañ leen di liggéey ngir jëm ñu borom bi. ñu gis. yàlla sédd la jëkkër joo xamante ne bii naqari na deret gàtt nay wax. Mm-hmm. du joxe tekki. Mm-hmm. yow wëlbati ko li wërsëg wi la yàlla jox nga di ko jaamu borom ci biir kër gi ba kenn du la xam. wallaahi. lu mu def moom la concerné. wallaahi. koor gi nga ci mm-hmm. leen taaj ndogu yi neex. ndax da dog boo bi nga togg ajur bang kay bang ba am yow lañ koy bindal duñ ko bindal gol gi yàlla ya dafa bañ ba manu lo financer yow ya la ko mala kay bindal te duñ juum ñom deug la de lek boo gii nag muy ñew diko ci lek nga diko wax kàddu yu yu neex sara tax la deug la de kenn ko ne sañ na ko ah sarax la nag xanaa booy saraxee nag ca bit njëkkee ko ci biir kër waaw waaw sarax sa napp bu baax tek ci ndog lu baax dafa lay neex di la wax lu neex ndax la damay sàq ngir borom. dëgg ah, de foofu la ñuy taxaw. ah kuy nangu yàlla. Mm-hmm. te mooy fay. Mm-hmm. dëgg la de. waaw ah, kon ku muusul mooy jàpp borom këram di ko naqar. Mm-hmm. kooku muusul. ko ko bindal bu jeexul fa lay dee. fay dëkkee rek ndax du nangoo soppeeku te fekk na foofu la ko fixé. loo gis mu génn ci sëy dafa jeexal. dëgg la de bakkan la de. lu métti métti foofu ñu ko. Mm-hmm. kon nañ fay tooge nañ ko seet gis ngeen suñ dund gi dafa gàtt. Mm-hmm. mbokk jullit yi xam naa ne foofu la ñuy yem. Mm-hmm. gàtt na. léegi gaaw na. kon dina ngay xam ne gàtt te ne yaa ngi defe ne ku am ñeent fukki at macha allah yaa ngi defe ne yaa ngi jëm ma. suuf fii la comme li ci at. Mhm. kon nag la ngay yóbbu ci sa borom loolu la jaam bi di war a xool ëllëg nu may xoolee sama borom ci mission bi ma joxoon ci àdduna waaye doo xool mission bi doomu aadama yi ngay dund. déedéet moomuñu ko. Mhm. yow li liggéey sa kaay lañ koy bind yow yaa koy nangu ëllëg sa kanam borom mu àttali ko. Mhm. dëgg la de lu tax duñ def lu baax. te bàyyi nit seen jikko. def lu baax. am solo. kon. Hmm, mbokki soxna yi xool ci ci mission bi. am ci dégg ci. ndeysaan buñ leen déggee bég ndax ci yoon wi leen fekk ñu nekk ay jàmbaar ay jigéeni exemple nee mhm. naa leen nit kenn du ko déglu te amul fu mu jaar loolu na ko ñëpp di bàyyi xel lu waaye wax mu dugg ci sa xol xamal ne daa jaar ci mission bu garaaw ba passé ko te moom doomu moo ko def moom boroomam mhm. mu may ko nag léegi nit ñi di ko déglu balaa ñu laa déglu dangaa jaar